Seydou Badji maa ngi lay nuyu. Seydou Badji nga nekk secrétaire général bu syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise euh, délégué du personnel euh, ci premier mais bi comme niñ koy amalee at bu jot ci la ñu màggal bés bu ñu jagleel wàllum fête du euh, travail yéen foofule ca Croix-Rouge sénégalaise naka ngeen ko daal di màggalee. waaw maa ngi lay euh, wax jaajëf euh, Ndeye Comba Moreau di jaajëfal euh, également seen responsable Rewmi FM parce que du du let que chaque fois da ngeen ma woo pour que ma mën wax ci mbir yu bëri comme aujourd'hui tey li ma bëgg wax ci moo affaire u fête premier mai bi nga xam ne moom la ñu fêté et que nga woo ma pour que ma ma wax et que également comme on le dit man maa nekk sa invité matinal pour waxtaan ci euh, mbir mi nga xam ne mooy premier mai comme ni ma la ko waxee ci français comme toujours dama lay wax ne que du ma mën a résumer concrètement li ma wax ci français mais damay damay cof rek di jël parties yi nga xam ne yooyu moo gën a am importance Croix-Rouge fête na premier mai mm-hmm. premier mai comme li ma ko waxee nekk na fi responsable syndical mais également délégué du personnel pendant euh, juróom euh, fukki at ak ñaar maa ngi comme délégué di personnel juróomi at ak ñaar laa nekk délégué di personnel liggéey bu tar lañ jànkonteel fii ci croix rouge maanaam bi ñu nekkee délégué di personnel foofu moo gën a compliqué peut-être syndicat revendication la ak xeex ak yooyu mais délégué du personnel mooy ki nga xam ne moom moo war a yóbbu dossiers yi fenn koo xam ne mën na fa taxaw mën ñu mënal ko lijjanti dossiers yi ñuy lijjanti fii Croix-Rouge tey mën nañu ko ne mën nañu def bilan maanaam def ko loo xam ne dañ koy wax ci premier mai te incha allah loolu la def tuuti pour ñu nit ñi mën a comprendre xew loolu tamit la jéem a wax tuuti ci seen micro. pour que nit ñi comprendre. waaw Croix-Rouge bi bi ma nekkee secrétaire général 2016 xeex nañu pendant juróomi ñaar. tey jii nii am na leneen loo xam ne xaw na changé kanamu travailleurs yi maanaam ci euh, revendication yi am na loo xam ne euh, xaw na saafaraw mais saafaraw bi lu tax ñu am résultat tuuti mooy état moo dugal loxo wax naa ne que croix rouge dafa nekk loo xam ne euh, mën naa wax ne association la boo xam ne bu am importance la boo xam ne état moo jël décret di taxawal li li ñuy wax Croix-Rouge au niveau du Sénégal bi muy taxawee ak géej gi musuma dégg euh, ou musuma témoigné ne que état musuma dugal loxoom ba muy am résultat yi nga xam ne moom la ñu yor ren ce qui fait que quand ku la defal dara lu baax da koy wax ñëpp dégg ko mais duñ ci ñëwaat ci côté yëpp ñu nga xam ne loolu moo xewoon fii Croix-Rouge maanaam état li mu dugalee loxoom nag la ñu xeexee mais dama ne comme man maa ngi sama dernier monda dinaa woo presse bi du moins camarades yi ñi nga xam ne ñoom laa teg liggéey bi dinañ toog face à la presse ñu ñën a décliner li nga xam ne loolu mooy suñu bilan bilan bi ndax baax na wala baaxul ci moment boobu la ñuy mais li am importance mooy comme état dugal na loxoom ñun ñu ngi wax au nom des travailleurs ci turu travailleurs yëpp ak délégué du personnel mais également mën naa wax ci turu euh, centrale ñu mu ñuy wax confédération des syndicats autonome des travailleurs du Sénégal ñuy tudd CSA mi nga xam ne taxaw na dañuy gunge di taxaw di wuti euh, ay solution de li ñu am ñu am ko donc ñu leen fàtte kon ko fàtte ki ki nga xam ne daf na taxaw yow doo tekki donc alhamdulilah am nañ ko mais waxuñu ne li am déjà sax def na que croix amatul problème non ñu ngi seeta ñu ngi xool ñu ngi xam ñu ngi vérifier tamit ci li ñuy am comme base yi nga xam ne yor nañ ko di ko càmbar ba moom ci ba ci ay weer dinañ ci revenir ci mbir moomu question yi nga xam ne am na importance mooy li ñuy wax euh, cotisation sociale tey jii nii benn pàcc moo am résultat mooy allocation familiale pàcc bi am sooxe tuuti bi nga xam ne dafa dafa réglé bu baax mooy IPRES donc question yooyu yëpp état dugal na loxoom mais CSA taxaw na temm di ñu gunge ba loolu mun a am alors résultat yooyu yëpp boo ko mënee tëral tey il faudrait que peut-être ñu woo presse ñu def su li ñuy wax bilan tey sama role en tant que secrétaire général sama role en tant que délégué titulaire mooy cof tuuti. expliquer tuuti doomu aadama mais également sargal sargal bi ñu ngi koy wax pour CSA ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi jaajëfal aussi état bi nga xam ne def na effort à travers le ministère de l'éducation nationale ak le ministère de l'emploi ñi nga xam ne bi ñu jotee dossier bi au niveau central taxaw nañ ci dossier yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a bénéficier ñu mën a ko am ba tey jii nii ñoom alhamdulilah ay fonctionnaires lañu ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci fonctionnaire ba pare ñu nekk ci croix rouge di liggéey kon loolu résultat la mais comme ni ma ko waxee dama koy répété donc li ngay tegaat su bët ci liy xam li am comme ni ñu koy waxee toujours syndicaliste kakapaar la am na résultat am na lu muy yott am na lu muy xool bu dee am na lu changé dina ko wax ou léeg-léeg sax ñu noppi parce que tamit du suñu rôle. li rôle bi mooy li am mais alhamdulilah comme nous sommes pas des des personnes amnésiques comme di ko tubaab di waxee maanaam li am nga wax ko mais résultat yi tamit def na vraiment lancé carrément Croix-Rouge ci kanam loolu xam naa li may waxee nii ñi nga xam ne ñoom ñooy de haut placé mën nañu ko dégg mais dégg-déggin bi dinañu gën a gën a leeral ci ay question yoo xam ne comprendre nañu ko bu baax. ñu mën a ko franc pàccal ñëpp xam ne am na résultat bu baax ou bien am na yeneen yoo xam ne sooxe na ñu jëm ko saafara euh. en gros loolu moom lañu ñu def ci premier mai bi di remercier ñi nga xam ne vraiment déplacé nañu seetaan ñëw na ñëpp taxaw nañ ci macha allah fête bi neexoon na donc ce qui fait que euh, li ñu mun ta wax ci olof mooy loolu la ñu mën a leen euh, yokk mm-hmm. en tant que peut nga ñëwaat ci beneen question xustuti ma mën a continuer après ñu continuer incha allah. bëggoon laaj si tamit yow est-ce que gis nga ni am na importance li ñuy wax dépôt des des cahiers de doléances est-ce que euh, pertinent na waaw wala déet noo ko gisee. waaw lu li nga laaj euh, loolu lu am solo la parce que souvent dañuy naan way dañuy déposer cahier de doléance est-ce que jar na ko si parfois oui oui am na solo parce que travailleur soo déposé déposé sa cahier de doléance kenn du la saafara ay problème léegi naa ne y' a pas de problème donc soo toogee ne waxoo nekk que lii moom lii lay jàmbat te waxoo ko sa employeur du la du la jox gëdd da ngay seetaan donc mooy tey déposé cahier de doléance war na lu bépp travailleur bépp syndicat war na ci préparé wu bépp central syndical loolu moo tax central syndical yi toujours dañuy rassembler question euh, yi nga xam ne revendication la. boole ko ci benn mémorandum maanaam mooy cahier de doléance bi ñu déposé à la présidente de la république di ci topp tey jii nii par exemple boo jëlee question yu bëri comme transport nga jël comme prise en charge nga jël yeneen problème comme li ma la ko waxee ci IPRES yooyu question yëpp mu ngi amaat ko ay retard ay problème yoo xam ne bu syndicat taxawul di ko préparer càmbar teg ko yow sa base bi wala ñi nga xam ne ñooñu nga jiite dañu lay wax ne yow yaa nga muy central muy syndicat de base dafa war a toujours taxaw wala même délégué di personnel dafa si war a taxaw loolu mooy tax chaque fois bu premier mai jotee syndicat yi central syndical yi comme ni ñu leen tuddee ñoom dinañ taxaw def seen euh, taxawaay ñuy taxaw marché dem ba palais de la république déposer di kay doléance léegi ñii nag ci entreprise yi comme par exemple ñun fii Croix-Rouge dinañu am ay question yoo xam ne gis nañ ne question bi saafarawul ñu dugal ko ci revendication bi bii xaw na sooxe ñu incité pour ñu mën a ko régler loolu mooy euh, importance su euh, cahier de doléance comme ni ñu ngi koy waxee mais euh, tamit fête premier mai am na importance parce que tey jii nii balaa ñu ne premier mais ay travailleurs ci àdduna xeex nañu bo état wala ñi lañ ñu leen embauché ñu utiliser la force rey leen kon tey nekk na bés boo xam ne mooy premier mai nekk na bésu dëj euh, parce que tamit même si ñu ngi koy fêté mais dañuy rappeler ñi nga xam ne muy à travers les premiers victimes euh, sur euh, les travailleurs ñi nga xam ne euh, passé na ci États-Unis su ma fàttewul ci histoire bi ñoom tey ñu mu ñu leen fàtte bi loolu tamit amee dans le monde entier partout syndicat da ko war a taxaw syndicat taxaw nañu ci ci bataay yooyu xeex mu yooyu ñu doon def syndicat am na ñoo xam ne dañu dee dañu leen rey ci seen xeex wala euh, négligence seen euh, employé au niveau de de l' amuñu lu ñuy wax prise en charge loolu amul ñooñu bu ñu génnee àdduna vraiment dafa yéeme kenn waxul ne kenn du dee mais ki génn àdduna te sonn na te xam na ne ay euh, employé bi moo ko waroon taxaw taxaw si donc ñooñu la ñu mën a tuddee des martyrs entre guillemets kon bu ñu nekkee marché yi dañu leen war a euh, jox gët non seulement nekkuñu fi mais di leen rendre euh, hommage di di wax seen jaar-jaar am na importance yu premier mais et ci loolu tamit bu jàllee quand même euh, comme tey muy seneen nit ñi dinañu daje ci seen entreprise ba après bu ñu bu ñu jógee ci marché yi ak syndicat central yi ñu ñëw ci suñuy liggéey toog jàkkaarloo ak employeur bi joxaat ko seen euh, information ci li ñuy am ne sentir nañu ko baax na ñu wax ko si li ñu xam ne baaxul ñu jéem a ko wax après ci euh, weer yi ñëw ñu jéem a jàmmaarloo ak ñoom euh, toujours liggéeykat moom dafa war a am ay travail ay responsable muy délégué du personnel muy des responsables syndicaux ñoom ñoo mun a taxaw jàmmaarloo ak employeur bi sinon li tubaab di wax. dañu leen di employé nekk un monde de la jungle et les travailleurs ne seront jamais satisfaits maanaam du ñu am li ñu xam li ñu bëgg ba pare kenn du leen déglu euh, de manière juste bu dee question yooyu mën nañu ko porté au niveau de la justice tamit danañ ko def mais li gën mooy concertation dialogue négociation avec l'employeur hmm. loolu moo gën a am solo pour que premier mai ñu sentir ne que jour bilan la kon mu nekkee jour bilan noonu la nekkee jour boo xam ne ba ñuy xam ne dañuy euh, jagleel euh, dañu koy jagleel ñi nga xam ne génne nañu àdduna ci mbir seen euh, jàmbarte ak loolu muy jigéen muy góor ñëpp jaar nañ ci fii gis nañ leen donc loolu laa bëggoon wax tuuti. ci sa question bi. Hmm. Euh, di leen remercier toujours. voilà euh, peut-être dernière question euh, Badji. Euh, mhm. di euh, yow naka nga gisee le fait que ñenn dañuy nekk euh, syndicaliste ba pare nekk politicien est-ce que yow syndicaliste bu baax war na def politique waaw wala déet juste une minute voilà. oui ci question boobu xaw na maa intéressé parce que am na benn petite partie bi nga xam ne dinaa ko wax ci wolof te waxuma ko ci français. man mi wax a yéen man je suis pas je suis feneen laa nekk pour mën a diriger ko euh, euh, sama syndicat mais nekk euh, responsable syndical et nekk politicien dafa dafa laaj ay ay nit ñi nga xam ne ñu dëggu mën nga ko parce que maa ngi rappelé jamono ñun bu ñu nekkee xale ay syndicaliste nekk nañu fii ay ministre ay syndicaliste nekk nañu fii ay député donc du coup syndicaliste bu question ne boo nekkee syndicat dañ la tere pour nga mën a nekk euh, en responsable politique wala nga mën a occuper poste politique loolu mën na nekk xëy na léegi nag seen expérience mën na permettre pour que euh, suñu la joxee ndombal tànk nga mën a ko utiliser pour que travailleurs yi jëf seen bopp loolu laa doon wax ma ne li ma sentir man ñu nekk au ministère de l' emploi euh, de l' par exemple nekk nañu mais ku am na ñoo xam ne dekkoon nañu ay syndicalistes tey jii nii boo jaamal jàkkaarloo ak ñoom da ngay sentir ne que toujours ni ñu nekkee syndicalistes fàttewuñu ko même si dinañ taxaw défendre état mais am na ay parti yoo xam ne da nga koy sentir loolu am na solo parce que gis na nit fu mu fu mu jógee te foofu métti mu jaar ci politique ñu ne ko léegi lii lañ la dénk yow léegi yow yaay yore lii en tant que moom. nekkoon na par exemple koo xam ne xam na question yooyu mën na andi ay réponses claires ci état bi mën na andi ay réponses yu changement changements au niveau du syndic des donc loolu mooy loolu loolu laa mën a euh, réagir par rapport à ça pour man kenn mën euh, na nekk euh, responsable politique également et syndicaliste l'essentiel xam fan ngay jaar pour nga bañ a mélanger ñaari rôle yi parce que loolu moo am solo. li am solo sa fàtte naa ko wax si français mooy ni nga mën a nekk responsable politique du caagee ne say militants say camarades ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo nekk ci sa syndicat say militants de parti la non mënul nekk loolu moo tax en partie ci ci statut yi syndicat c'est une association apolitique d'une manière générale mais engagement yi nga mën a am en tant que personne comme tel bul ko bul ko jaawalee ak sa rôle en tant que secrétaire général ou en tant que délégué du personnel dans une entreprise par exemple loolu am na solo pour dire que loolu ñun ñi nga xam ne ñun ñoo jàng jàngul ci syndicalisme loolu la ñu comprendre lool laa comprendre loolu moo tax man bi ma nekkee secrétaire général ou délégué du personnel dama sori trop trop du politique c'est vrai dinaa critiquer politique dinaa def analyse mais ça ne veut que am naa fi may teg sama tànk pour ma confondre sama position de responsable syndical ak sama rôle en tant que euh, responsable dans la politique mais alhamdulilah moi je suis pas politicien ñi ko nekk nag tamit ñoom lay wax si loolu la ñu war a te xam naa ne peut-être yooyu lañuy def incha allah yéen journalistes yi bu leen jàkkaarloo ci keneen koo xam ne euh, nekk na euh, responsable politique en même temps mu nekk euh, syndicaliste wala ngeen gëstu da ngeen xam ne que secrétaire général tel mu nga tel entité fu lay yëngu ngeen xam est-ce que confondre rôle am ci euh, politique am boobu ak lii bi nga xam ne moom la war a jouer ci syndicat bi en gros laa waroon wax te di leen remercier encore une fois da ngeen ma tendre micro bi tey pour mu nekk seen euh, invité matinal di leen wax merci et di leen wax nekk tamit bon dinaa ko mën a annoncer fii. voilà que man bientôt damay dem. deux voilà merci beaucoup Seydou Badji ñu lay remercier bu baax a baax nga nekk secrétaire général bu syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise nekk délégué du personnel ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. merci beaucoup Mamoro au